te ngóor gi ñu yor di ngóorug iblis waaw faw ñu leeral waa Sénégal senegal ñu xam lan mooy ngóorug iblis ngóorug iblis ngóorug iblis même boo nee jullit nga wane croyant nga ni musulman nga ni aspirant nga te Iblis représentativité am nekk fépp ak ci ñëpp Iblis mën naa fexe ba doo tàmbalee ci yàlla dëgg la waaw Iblis boo yore nguuram mhm. danaan la waxal lu la neex wëndeelu ba dellu si nag soog a tudd yàlla du doon du ñu ko tey du doon ci ñoom li muy nguurug Iblis a tax Iblis bu ko neexee ki muy ki lay ki koy représenté ci sa wet danaan la da lay doo wax mukk bismillahi rahmaani rahim doo ko wax est-ce que nguurug yàlla am na loolu c'est le commencement de tout acte wallahi pour les croyants et musulmans bismillah au nom il faut Sénégalais yi néew ñu nañ fi jóg ñoom tey tey néew ñu it système bi nga xamante ni bi Iblis moo ko coiffé na fi jóg tey tey waxuñu loolu hmm. ñun ay réforme la ñu proposé réforme yi mooy lan hmm. mooy lenn lu nekk lu ñu amal lu nekk constitution bi amal ko ñu xool dal di xool waxi ku tedd ki settantal ko ci Matlabul Fawzayni ci naax ju ci Matlabu Chifa yi hmm. wut ci loo xamante ni bi moom la ñuy tuddee moom la ñuy def li ñuy tuddee res euh, kii réceptacle référence ñëw ñu tubaab yi dañoo bon le lépp de am na lu ñu baax la waaye baax li wuñu lépp ah. hmm? te ak ab jullit dul baax le lépp asama tubaab dëgg la dëgg la bu ko defee nag war ma ji nga xam ni loolu sama bopp laay wax mhm. man la concerné war ma ji nga xam ne dama koy bàyyi xel mhm. surtout ci ñaar ñii ci mag yi ak Idrissa ci jërëjëf Serigne Touba ji ma dégg seen làmmeñ te déggatuma ko xam lan moo tax mhm. li tax duñ ko mën di wax toujours mooy lii ma leen wax ba tey génnul foofu maanaam seen nguur yi day loo nguuruk àdduna day loo xam ni iblis moo ko coiffé boo bëggee wax tey lu baaxee bu ne la bu subaa bu ko wax ndax dégg ngeen ñu waxati ko hmm? ba élection yi jàlle léegi ñoom gis nga ci kenn ku toog ci rajo mbaab télé ni jërëjëf Serigne ba waaye xoolal ku tedd keeg yërmandeem bañ cey wut lañ ca doon wut te teewul mu jox leen ko bañ a amee lañ ca doon wut itam waxatuñu man nag looloo taxoon ma gën leen a jàpp néew ma dinaa bàyyi kenn ndax man musuma bàyyi kenn waaye nañu bàyyi xel ci li may wax ndax je suis extrêmement conscient ana nabilun xam ngeen ni réew mi ki fi nekkal ku tedd ki nekk fi suyuux yëpp nekk fi sang yi nekk fi ma gën a xeebu jóg ni damay taxawal benn opposition radicale pour def face à ak ñoom xam ngeen loolu bala ñu ci ay egg lu ñuy seetaat lay doon dafa laaj xel étape par étape dañ leen di may tuuti ba xam lii ñuy wax ñoom dinañ ci d'accord wala duñ ci d'accord mm-hmm. buñ ci dul d'accord ñoom ñëpp ñu abal ñu parce que am nañ ñeneen ñu jàng ni ñoom ba noppi te gëm li may wax te mën a jiite réew mi lenn ay mën a am ñun wax ay proposition la ñuy joxe de ñun néewuñu ak ay néewuñu dal na fi liy jóg ñun dañu ne rek nañu wut base de référence à partir de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul def ko mbànd day attan lépp supporter lépp looloot sotti ci ñun loolu wax bu ñu ko nanguwul wóor na Ahmadou Bamba dinañ gis mbir man Modou Mbacke maa wax loolu da ngeen baal ma àq nag xam naa xañ na ma